ala kulli xaal yu ngénte ëmb ñu koy faral di laaj bari na lool génte ëmb na am na tegtal yu am solo yu mata bàyyi xel ala kulli xaal képp ko xam ne gént képp moo si yitte mën nga jël numéro bi ni envoyé gént 78 443 75 27 képp ko am gént rek envoyé vocal incha allah saa buñ ko dégloo dinañ la tontu beneen aajo bu dul gént moo xam seet wala listixaar wala mu am jafe-jafe ci wàllum hémorroïde wala ndoxu siti incha allah rabbi su ko neexee mën naa woote ala kulli xaal gént ëmb bi ci njëkk rek coono buy jeex la mooy coono boo xam ne yaa ngi koy dund sun borom namm la teg wan ci biir gént yi gént ëmb góor sax da koy gént du caagin gént ëmb jigéen képp koy def na góor ñoo xam dañuy gént ëmb lool tamit ay coono yuy jeex la wala gàllankoor yoo xam ñu ngi ko doon dund mu nar a jeex suñ boroom wan leen ko ci biir gént gi su fekkeen tamit tamit danga gént ci biir gént gi ëmb ba noppi am doom loolu moom xamal ni nattu bi ngay dund jàppal ni bala am ab diir suñ boroom daal di teggi gàllankoor yi ak tolof-tolof yi nga xam nit kan ko doon dund kon génte ëmb coono yi jeex la jafe-jafe yi jeex gàllankoor yoo xam ne suñ boroom na mëna la ko teggil ba tey tamit ci biir génte ëmb am ci doom loolu moom gàllankoor yi mën na jeex bala yàgg incha allah rabbi tegtal yi nag am na ay sarax yu am solo yoo xam ne yu mata bàyyi xel ñooy ay saraxam mooy ki nga xam ne dafa gént ëmb wala mu gént am doom kon natt buy jeex la gàllankoor bu sun boroom namma teggi xol bu lëndëm boo xam ne dana leer wala jafe-jafe yoo xam ne nit kan ko doon dundu sun boroom nam ko ko teggil mën ko ko ci biir gént yu mel dafa gént ëmb tegtal yu am solo yu mata bàyyi